برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينام وعلى آله حقق قدر العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام حضرة الشيخ الخليفة خادم الأمة مولانا الشيخ محمد الماحي ومولانا وروح أشباحنا بشبح أرواحنا مولانا صاحب الفائدة مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وعنا به آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu sa njaboot te mooy njabooti baay yi njabooti deret gi njabooti roxo gi nuyu boo xam ne mu ngi jugee ci imam Cheikh Ahmed Tidiane ibn سيدي علي سيسي رضي الله عن السلف وبارك بالخلف امين يا رب موني نيان ني جوتلي لا اي كاد كادوي نيو واي كادو غيرمانديم موم ليغا خامني سي سنديغال لا اوي طالبي ني اويسي woote boo xam ne taalibe yi ñoo ko coobaree woon ci jamono baay ñoo coobare woon tànn bés pour ziyaare si baay pour feeñal seen sant yàlla beesal kóllëre yi nga xam ne moo nekk suñ diggante ak sëriñ bi loolu mu nekk cosaan lu màgg ci njub ci ku jëm ci yàlla tabaraka wa taala bàyyi waxoon na ne fala budda lil muridi an yatawajjaha ila cheikhihi yarbutu qalbahu bihi wa yataxaqaqu an alfayda la yajiu illa biwasitatihi wa in kaana al awliyaau kulluhum haadina muhtadin bàyyi ne yoon na war na ci taalibe waxtu wu nekk mu jublu jëm ci péyeb sëriñam takkee xolam ak sëriñ bi am kóolute ne tëbbu yi may yàlla yi zaahir yu baatin yépp du ci am dara moom lu may ci buntëb sëriñam la koy amee donte wàllu yu bari nañ way juble ñu bari nañ waaye taalibe bu nekk sa péyeb sëriñ noonu la war a toll ci yow bàyyi ne farabtul qalbi bi cheikhi aslun kabirun fi istiqaamati takkee taalibe bi xolam ak péyëb sëriñam nee na cosaan lu mag la ci njub kon alhamdulilahi te bàyyi li mu bëggoon ci taalibe yi mooy jub mag ñi fi jaar yoon woowu rek lañ nekkoon maam sëriñ Mbay Seydi Ali Cissé maa Abdou Niang ñëpp ak mag ñi nga xam ne ñi ngi àndoon ak bàyyi ñëpp ci loolu rek lañu nekkoon pour takkee xol yi ak péyeb sëriñ bi ndax dem nañ ba mu wér leen ne njëriñ foofu rek lay jógee ñeel taalibe yi loolu moo waral oote bii àddina waralu ko leneen waralu ko waaye jubale xol yi ñu jëm ci yàlla rek moo tax a jug loolu sëriñ bi imaam nee na mu ngi lay ñaan nga ñaanal taalibe yi ndax oo nañ leen ñu uysi te bañ uysee it ku ci nekk uysi nga ànd ak lépp loo man ku nekk rek fexe nga bala nga defoon daaw nga ne naa def ren lu ko ëpp ànd ak ne xam nañ ne oote bi xaalis taxu koo jóg bàyyi waxoon na ne ziyaare mooy li war ku bàyyi ziyaara ngir bàyyi ngir ñàkk loo joxe mu ne bàyyi nga li war ngir li warut te yow Seydi Cheikh Mouhamadul Mahi ku laajte lan nga am na benn bëgg-bëgg boo xam ne ñëpp ñëpp dañ ci d'accord lu mu bëgg rek ñu nekk bëgg na xam-xam li nga doom mooy li nga xam ne buñ ko laajtee ñëpp xam nañ ne loolu bëgg nga li ci def nag nit ñi dañ ci ubbeeku kon oote bi nga xam ne Baye moo ko doon oote nga beesal ko tey nit ñi dañ ko uy si ngir Baye lañ uy si Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nee na Abdullahi wuld alxaaj waxoon na ne algaradu min al awraad tijaaniyati chimmu raayxati alxaqiqati almuhammadiyati mu ne wirdu tijaan bii liñ ci jublu yëpp mooy xeñtu xet ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam taalibe yi ñëw tey yëpp tim li tax ñu ñëw mooy xet xeñtu xet ak Baye ci yow mi nga xam ne yow yaa toog nekk ci xilaafa ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal sa fan may la wér dëgëral la ba semb yi nga tàmbali nga mottali ko waaye imaam a ngi ñaan nga ñaanal taalibe yi waaye ñun ñu lay ñaan nga ñaanal imaam ndax tim li taalibe yi góorgóorlu ci ziyaara bi mu ngi tële mu ngi am ngant amoon na ngant ne mën naa ñàkk dem ci jumaa ndax taalibe yi wan nañ leen yoon yi ba fi ne bu ñu leen ooyee rek ñu ñëw waaye tir bim tir ci liggéey boobu gëm ne liggéey boobu li fi nit ñi amoon démb moo leen ko mayoon lu fi nit bëgg am tey tim moo la koy may Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wax na ne laa yunaalu maa indana illa bi sidqi wal mahabbati li nekk ci ñun kenn du ko am lu may ci bëgg ak ci ngëneel bu fekkoon la nekk ci bàyyi nit ñi dañoo àgg ci teggin fañ cey àggee wala ñi àgg ci joxe fuñ cey àggee walla ñi àgg ci bëgg fuñ ci àggee boobaa ñëpp daañ naagu pour àgg ca la nekk ca loxoom waaye moom moo waxoon ne kullu muridin yasdari muridi fi xidmatin wa adabin muridi ne man saxibani muraadu ida kanaalu kulla ma araadu nee na taalibe beneen sëriñ bu nekk bu xoolee sama taalibe mën na koo xeeb ci liggéeyal sëriñ ak teggineel sëriñ waaye mu ne man ñi ànd man ay muraadu lañ duñ sax ay muridin ay muraadu lañ yàlla moo leen namm muraad mooy ay cheikh yàlla moo leen jiital yalla moo leen bëgg du ne dañoo def effort bu ñu amee la nekk fa moom la nekk fa moom buñ doon bu doon lu ñuy jënd kon dañ lottu ci jënd ko waaye moom mbaaxam mi nga xam ne faydu la indi nga xam ne dana la fekk ngay nelaw sax mu waale la yóbbaale la loolu may googu moo tax nit ñi di am li ñuy am ci pay bi yëpp taalibe yi ñëw nañ uy si nañ oote bi bañ ñëwee tim ku ci nekk def nga li nga man def nga sax loo xam ne ni mënuloo ko waaye kuy defee ci yàlla dangay def rek ndax yàlla moo moom mi la sant nga def moom moo lay defal looloo tax taalibe yi fu nekkoon daaw waxtu wu nekk passé nañ ko ci dundale ak ci joxe ak bëgg pay bi ak teew teewaay bii nga xam ne moom moo gën a itteel sëriñ bi ndax moom mooy moo doon ittey démb yi Seydi Ali mas naa wax fii ne sëriñ bi dajee bi taalibe yi dajee ci kanamam loolu rek doy na ko ndax moom bu doon ut yàlla rek lay ut waaye yàlla xas na ko doy ba songut mbiram ut loolu moo fi nekk ba tey jii sëriñ bii tey nekk fi utut lu may li nga xam ne nii moom la fekk moom la bëgg muy xam-xam te xam-xam mooy jub xam-xam mooy àggale ci yàlla xam-xam mooy leeral xam-xam it moom la fi bàyyi bàyyi moom la yonent yi donnloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñun mbooloo yonent yi duñ donnloo dinaar duñ donnloo eh, dirham waaye xam-xam la ñuy donnloo ku ci jël rek jël nga ci cër bu law te dundam yépp loolu la ñaanal leen imaam yàlla may ko wér yàlla delloo ko ci sagoom ñaanal taalibe yi yi nga xam ne dëgg-dëgg góor góor nañ ci bëgg yàlla wane nañ seen bëggeel ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lii lañ lañ oo tey ñu uy ci lii bu ñu leen ooyee ëllëg ci leneen tamit dañ uy si ci ci leneen loolu waaye nañ xam ne ñu ci pays boo xam ne dafay dox jëm ci kanam dafay dox jëm ci kanam dëppoog jamonoom waxtu wu nekk nag nañ pare ne pays baa ngi oote loo xam ne bu ko ootee du pour jëriñ sëriñ bi du wut pour dépasser kenn waaye pour njëriñ loo xam ne dafay dellu ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam njëriñ loo xam ne dafay dellu ci euh, réew mi njëriñ loo xam ne dafay dellu ci l'humanité oote bu ñu oote rek bu pay bi oote rek ñu ngi ko sof ci oote yooyu nga xam ne démb moo sosoon euh, oote yi pay bi ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi yàlla na yàlla guddal sa fan euh, sémb yi nga sémb yàlla na yàlla ko mottali yàlla def ñi ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy lay dimbale ci sémb yooyu nga xam ne ñun gëm nañ ne liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu la ku ko def rek sa bopp nga ko defal ndax dana pare bokk ci luy pare yàlla moo la koy baaxalee waaye ku ci bokk tim liggéey bi dana pare yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoo koy pare yal yàlla may dëggu ci xadar Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yàlla may teggini pays Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yal yàlla may mbëggeel goo xam ne nii euh, dana tax ñi xeeyoo askanu ci moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yàlla xool jëm ci mbooloo mi bëti yërmande bëti ngërmande jëruñoon kàddu pour wax dañ doon jël kàddu pour jottali euh, nuyooy imaam ak ngërmaandeem ci taxawaay bi nga xam ne moom nga taxaw ci lépp loo xam ne nii dafay jëmale pays bi ci kanam nga jox ko ci ndigal mu taxaw ci taxawaay bi mu war a taxaw bu demee ba nga xam ne la gën a yomb ci liggéey bi loolu la joxe ngant la gën a jafe ci liggéey bi taxaw na ci kooku xeeyoo nañu gërëm ko na nañu sant ko xeeyoo na ñi ñaanal ko Cheikh Mouhamadul Mahi ibn Serigne Mbaye joxe na ñaan googu wax nga amin ci ñaan googu waaye tim bët du tere ñi ngi sàkku sa ñaan ci moom di sàkku sa ñaan ci mboolem taalibe yi képp ku ñëw ci ziyaara bi yàlla nangu la sa ziyaare ba bu ñuy dellu la mbooloo yi toog fii yi toogoon fii bi ñuy toog buñ fi jugee ñoo ñuy jëmm yooyu dem nañ bu yàgg yeneen jëmm ñoo fi taxawaat te xam nañ ne mooy jëmm yi ñëw ziyaare baay ba pare bu ñuy dem yeneen jëmm ñooy taxawaat waaye yeneen jëmm yu taxawaat ñoo gën jëmm yi nga xam ne ñoo fi toogoon yàlla na yàlla defal لولو ينيب اللهم صل على سيدنا محمد وسلم برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن ينام